بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom aji màgg ji te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi noo ngi julli di salmal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru tafsir alquran alazim fi hada alchahr almubarak wa fi ashriha alawaxir kon nu ngi nekkoon ci suuratul mujaadala borom bi defaloon ñu tawfiq ba ñu yegsi ci laaye fukk ak ñaar wala fukk ak benn tey ñu war a tàmbali ci laaye fukk ak ñaar ba ci jeexintalu saar wi borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون sunu borom subhanahu wa taala ci saar wi nga xam ni moom la ñu nekkoon muy suratul mujaadala wala mujaadila di ndaw soosu nga xam ni moo ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko jàmbat ay kàddu yu ñaaw yoo xam ni borom këram moo ko ko wax muy kàddu yu bon te ñaaw nga xam ni sunu borom da ko tuddee munkaram min al qawli wa zuura nga xam ni kàddu yooyu jaaduwut góor di ko wax soxnaam su rëcculee ba wax ko ko dana am benn yar ci yari lislaam yoo xam day dal ci kawam te loolu àtt bi feeñ na ci sunu bind bi weesu beneen njàngale war a ñëw ci saar wi sunu borom mu ni yaa ayyuha alladina amanu ee yéen gaa yi nga xam ni gëm ngeen sunu borom subhanahu wa taala alladina amanu bu ko borom bi waxee ci alquran mooy ñi nga xam ni kafaru bi taagut wa amanu billahi rabbil alamin mboolem luy taagut ci lu ñuy jaamu ak lu ñuy xitiliku ak lu ñuy dimbandiku ak lu ñuy def yàlla ñoom duñu ko gëm waaye dañ koy weddi waaye kenn la ñuy jëm muy sunu borom lam leen di jural mooy imtisaalul awamir wajtinaabul manaahi mboolem luy ay ndigle dañ koy jëfee waaye luy ay tere ñoom dañuy gaaw ca bàyyi ga loolu moo tax benn borom xam-xam di wax ni yaa ayuha alladina amanu jooromb ci alquran taxaw war na la ndax su boobaa taxawaay ba taxawaayu déglu la bu dee amr la dañ lay digal nga gaaw def su fekkee dañ lay tere nga gaaw bàyyi moo tax jazallahu cheikhana abu bakrin jabirin aljazairi xafidahu llah wa raah am na benn téere bu am solo bu mu tàmbalee bu mu taalif tuddee ko nidaatu rahman woote yi nga xam ne moom la sunu borom di arrahman di woote ñi gëm yàlla ci alquran mu dajale ca ya ayuha alladina amanu yi nga xam ni yépp dafa rot ci alquran wa kadalika nidaatu rasul woote yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy woo ñi gëm yàlla moom it mu beral ko beneen téere xaasa yàlla na sunu borom fay ko yiw te sàmm ko sunu borom mu ni yaa ayuha alladina amanu yéen ñi nga xam da ngeen a gëm sunu borom ida naajaytum rasula su ngeen déeyaaletee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam faqaddimu na ngeen jiital bayna yaday najwaakum lu jiitu seen déeyaale ak yonent bi sadaqa ab sarax fa qaddimu na ngeen jiital sadaqatan ab sarax bayna yaday najwaakum mu jiitu seen déeyaale ak yonent bi dalika loolu xayrun moo gën wa ato lakum ñeel leen wa atohar te it moo gën a laab laaye ji bokk na ci aay yi nga xam ne dañ koo nasaxal kon saar wi di suratul mujaadala dajale na benn aaya boo xam ni naasix ma nga ca mansuux ma nga ca waxoon naa leen ni bokk na ci xeeti xam-xam yu xóot yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo pour xam alquran muqaddam muaxar naasix mansuux asbaabu nuzul ak xeet yooyu nga xam ni ay xeeti xam-xam la yu kawe yoo xam ni borom xam-xam yi nga xamante ni dañuy jàngale islaam dañuy wax ni yooyu jaadu na kenn kuy yëngu ci alquran ku ne mu xam ko laaye ji nag lim boole dafa kéemtaane mooy léeg-léeg da nga gis aaye ji nekk naasix waaye man suuxam ma nga ca weneen saar léeg-léeg nga gis aaye ji nekk man suux fekk la ko naasix ma nga ca weneen saar aaye ji nag ci même aaye ji ci la naasix ji ñëw ci la man suux ji ñëw loolu nag yombut waaw loolu moom yombul ci alquran borom bi subhanahu wa taala mu ni yéen ñi gëm yàlla ku nam ma de deeyaale ak yonent sa sanam ci sa aajooy bopp na nga jiital sarax doog a ñëw laaj aaya ji li ko taxawaat ci xam ngeen ni yonent bi saa sallam ku laawoon biir la te it noonu la borom xam-xam war a mel bu dee mi ngi roy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léeg-léeg saxaaba yi dañ daan ñëw di laaj yonent bi saa sallam ay laaj yu bari ba yonent bi dootul amati heure noppalu mbooloo mu bari ku laaj bàyyi ku laaj bàyyi mi ngi mel ni bu doon suñu jamono ji ñu ni bu doon téléphone la daanaka da nga yenda wuy ba ngoon jot yëf yi dem ba wax dëgg yàlla metti ci yonente bi salaa sallam lool loolu mi ngi mel ni sahaaba yi bu heure gee jotee rek ñu daal di ñëw ku nekk reer ba noppi rek fenn sa waxtaan loolu defe naa gisoon ngeen ko ci suuratu Nuur di waxtaan ba yonente bi salaa sallam daanaka gëmmentu te duñu am xelum dem loolu nag li ko waral mooy xër gu ñu xëroon ci yonente bi salaa sallam suñu borom daal ni ah suñ leen wootee ci lekk ñëw leen su ngeen lekkee ba noppi nee leen mott ñibbi wala mustanisiina li xadiis bu kenn fellati waxtaan ginnaaw gee ndax loolu dafay lor yonent bi saa sallam fa yastaxyi minkum te daa am kersa pour wax leen ko waaye nag yàlla ci boppam moom moo yónni yonent bi saa sallam moo tax moom du am kersa ci wax li am wallahu la yastaxyi min alxaq suñu borom moom du am kersa ci wax dëgg ci lañ commencé saxaaba yi ku ñëw ci kër yi sa salam bu la fa lekk fekkee boo paree rek daal dem sa yoon amul fenn waxtaan ak yeneen ci ay atte yoo xam ni rot na ci alquran ak sunna saxaaba yi doon nañ ci raj rajloo ci yonent bi saa salam alquran ñëw daal di koy xitili lii ci la bokk da ngay gis ku dugg génn ku dugg génn te bu fekkonte ne ay masalay diine kese la ñuy laaj waaye ñiy laaj masalay diine di ko laaj ñii diisoo di diisoo ñi wax seeni soxla di wax seeni soxla ku nekk ak sa problème bopp sama tool ba temps yi daa manqué ndox sax da ngay gis ku ñëw di ko waxtaan parce que ñoom jàppoon nañu lépp yonent bi sallam moom lañ ci war a waxtaane tey it wax xalahum daalik wax nañ dëgg nag ndax jàpp naa ne kilifa gu yoon yéen sallam ku ko am wax dëgg yàlla waroo faa gëj nag waaye tamit nag bu suñu borom bàyyee nag gars yi duñ fa gëj bu yàggee moom it nag mu gëj ci boppam gis nga moo tax alquran diine la nu mu tuddee téere la boo xam ne téere bu kéemtaane la su ko defee suñu waram daal di léegi képp kuy laajati yonent bi wala nga bëgg a giseeg moom betoog moom rek da ngay saraxe doog a giseeg moom ci misaal ku bëgg a amati betoog yoon sasam na nga saraxe téeméeri wala 1000 francs xam nga loolu bu yàggee mbooloo mi wàññeeku de bu fekkoon te dañoo wax ne léegi ku woote téléphone di laaju masala rek na nga saraxe 1000 francs doog a laaj jàpp naa ne ñi doon laaju masala léegi te ñu gëj leen a laaj su fekkoon dañoo wax ni waa ji kat balaa kenn ñëw di wax ak moom ci ay masala na nga joxe téeméer wala joxe addiye bu bu commencé woon léegi dégg gars yi ñu ne diw daa commencé laaj addiye fekk déedéet ak njàngale la woon boo xam ne suñu borom daf ciy bëggoon a yar nit ñi su ko defee bi aaya ji wàccee ah nga gis affaire yi commencé wàññeeku bu mbooloo mi daan ma téeméer léegi nga gis sawaay fanweer wala ñaar fukk ak juróom rek ñooy ñëw suñu borom ni fa in lam tajidu loolu mooy naasix bi naasix mooy bi folli man suux mooy bañ folli ida naajaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa mooy mooy man suux ji mooy li nu folli ah fa is lam tafaalu wa taaba allahu alaykum mooy naasix bi kon naasix mooy li folli man suux mooy lan folli toujours borom xam-xam xadis yi dañuy wax ne xadis am na naasix am mansuux waaye xadis naasix ak mansuux pour ñu xam ko dafa laaj dafa laaj xam ban moo mujj moo tax jamu bayna al ahadith dafa laaj tuuti xam-xam benn xadis day ñëw ni yonent bi saa sallam nee na ku lekk loo xam ne dañ koo lakk ci sawara na nga jàpp beneen xadis ñëw ne yonent bi kat daawul jàppal lu lakk ci sawara mu yàpp ci misaal wala yu ni mel ñaari xadis yooyu te yépp wér na kooku daa laaj ñu xam ñu xam ban moo mujj pour ñu xam ko dañuy jëfandikoo xadisu Jaabir ibni Abdillah xadisu Jaabir moo dox ci diggante bi mu ni li ñaari masala yi la mujjoon ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bàyyi la jàppal lépp loo xam ne togg nañ ko ci sawara wa illaa bu njëkk dañ daan jàppal soo lekkee ba not maanaam soo lekkoon yàpp fu ne ba pare da ngay jàpp waat ba mu des nag yàpp giléem ndax boobu beneen xadis moo ñëw génne ko ci ndax yàpp giléem ku ko lekk soo pare da ngay jàpp waat kooku moom beneen xadis moo ñëw génne ko ca kon yu mel noonu xeeti xam-xam yu xóot la yoo xam ne ku ko xamul mën nga def njaaxum te doo ko yëg su ko defee kon naasix mooy ki folli mansuux mooy kañ folli te xam ngeen ni kiy folli toujours moo war a mujj sunu borom mu ni zalikum loolu day jiital sarax doog a deeyal ak yonent bi xayrum lakum moo gën ci yéen wa atuhar te it moo gën a laab moo leen gën di laabal di leen gën di sellal fa id lam tafaalu su ngeen ko deful nag wa fa in lam tajidu su ngeen amut lu ngeen mën a sarxee fa inna allaha xam leen ni sa borom yàlla kat gafuur ku bari jéggal la waaye rahim ku bari yërmande la moom sunu borom subhanahu wa taala sunu borom mu ni asfaqtum mu ndax day diis ci yéen an tuqaddimu daf leen a diisal an tuqaddimu ngeen jiital bayna yaday najwaakum ci seen njàlbee nag deeyal ak yonente bi saa sallam sadaqaat ay sarax loolu daa diis fa id lam tafaalu su ngeen ko defut nag léegi sax wa taaba allahu alaykum yàlla nee na baal naa leen léegi dellu leen mbir mi na mel nam meloon am na ci borom xam-xam yi tafsir yi ñu wax ni aaya ji benn heure rek la ci ak bëccëg rek la woon ñu daal di koy folli am na ñu ne aaya ji Ali ibn Abi Talib rek moo ko jot a jëfe moom rek moo jot a dem saraxe pour ñëw ci yonent saa sallam pour déyaaleeg moom waaye daal liñ ci mën a xam mooy yàggut diir bu gàtt la suñu borom ni wa taaba allahu aleykum yàlla baal na leen léegi nag yoonal giñ ko fi jot a yoonal ci diggante bi am na fi njariñ de luy njariñ bi ah dina tax léegi même buñ saraxee tutit même buñ saraxee tutit danañ xam ni wax dëgg yàlla liñ doon def jaaduwul maanaam dañ danañ xam liñ doon def jaadul xam nga gis nga moo tax gis nga borom alquran daal mooy xakim maanaam léeg-léeg day doxal doxalin woo xam ni maanaam dana la karwaase ba sa yaram tàng te du la laal du la du la wax la naqari maanaam yar yar yu yaree lay la doon yaraatee yu yarut la daan yaraatee ah afa allahu ank baal naa la li nga def lépp waaye li ma asinta lahum lu tax nga jéggal leen gis nga façon boobu mosuma gis kuy baalaatee noonu ca tabu bay amee am ba bare bi ba yàlla yedd yonent bi lam jiital xoolal mos ngaa ne gis kuy yedd nit xanaa kay bala nga kaa baal da nga koy yedd ba pare doog koy wax ni ko baal naa la wala mu ni baal ma nga ne ko baal naa la waaye yàlla da ni ko afa allahu an yàlla baal na la lépp waaye léegi li ma asinte la lu tax nga jox leen digal kon gis nga façon waxin woowu wax dëgg yàlla yeddaange la joo xamante dina tax nit ki ëllëg moytu lam defoon suñu borom mu ne asfaqtum ndax da leen a diisal wala dafa diis an tuqaddimu ngeen jiital joxe bayna yaday najwaakum ci njàlbeen ak seen seen kanamu maanaam avant ngeen di deyal ak yonent bi sadaqaat joxe sarax mu ni fa id lam tafaalu su ngeen ko deful wa taaba allahu alaykum yàlla mu ni baal naa leen kon nag fa aqimu salaata dee leen joxe julli ca nam waree wa aatu zakata dee leen joxe azaka ca nam waree wa atiu allaha wa rasulah topp leen yàlla akub yonenteem te ngeen xam ni wallahu yàlla xabiir ku dañ ci kumpala bi ma taamaluun ci li ngeen def dara ëpp ko su ko defee saxaaba yi xam ni kat wax dëgg yàlla yi fiy jaadootul nga xam ne da daan toog ci néegam gars yi di waxtaan ba muy ubbali fekk bëgg naa tëdd te xam nga wax dëgg yàlla neexul nga naan diw jug leen tëdd moo tax damay faral di wax ne ku dem kër jàmbur di ko gane nga ngay wax ba muy ëbbali nag wax dëgg yàlla war nga mën a jug dem na bu dee am ngam xel tuuti ngay wax ba muy ëbbali rawatina heure boo xamante ni heure noppalu la salaatu awraat mooy min qabli salaatil fajri ak xiina tadauna thiyabakum min azahira ak wa min baadi salaati al isha mu ni thalathu awratin lakum ñett yooyu heure la yoo xam ne dañ ko war a bàyyi nit ki mu wéet ak boppam loolu nag wax dëgg yàlla boo seetloo daanaka ñun jëfewuñ ko de leeraloon naa ko ci suratul nuur nag waroon leen ni ni yooyu yi ma ta bàyyi xel la parce que léeg-léeg wax dëgg yàlla dañuy fëkk charte yi te duñ dañuy fëkk charia te duñ ko yëg sunu borom mu ni ci wolof wolof mooy min qabli salaati al fajr avant ñuy julli fajar maanaam heure bi nga xam ne dañuy julli fajar day fekk nit ki yeewoogul wala muy waaj a yeewu wala boobu mi ngi yor solo yoree fanaanu kaayam wala boobu jekkul jekkul mën a dajeeg nit ñi heure boobu bañ koo seeti nit moo gën allahuma lu dul lu mënta ñàkk moo la wax ñëwal wa illaa boo xëy na jumtukaayu téléphone yi ñu jëfandikoo ko yëg lu am ba am ndigal doo ko def beneen bi mooy wa wa wa xiina tadauna thiyaabaka min az-zahira loolu mooy sieste heure bi ngay summi sa yére ci waxtu tisbaar yonent yàlla bi nee na day leen tëdd bëccëg ndax seytaane moo dul tëdd bëccëg moo tax borom xam-xam ba mu toogee ba digg bëccëg benn waaye ni koŋ-koŋ mu ni waa ban seytaane yi fëgg sama bunt bi heure bi gis nga kon tëdd bëccëg lu mu gàtt gàtt gàtt lu am solo la ay njariñ yu baree bari ci wàllu wér-gu-yaram da koy indi te day tax nit ki mën a jug guddi day tax nit ki am force pour liggéey la mu war a liggéey ca les ci bis bi heure boobu dañoo bëgg digg njolloor bañ koo seeti nit lu dul ngànt moo am wala woote wala yëglu wala mu ñu la ñëwal bi jële soo min baadi salaatul isha boobu moom ñun ñëpp koy faq moom boobu moom ñun ñëpp koy faq mooy ginnaaw gee la gën mooy gee moom ku ko julli waxuma la nga seeti kenn de la gën mooy ku ko julli tëddi allahuma lu dul assamar fi l ilmi aw nahwihi ngoonal ci xam-xam wala lu ko nuru di jàng si njaayeen bi nee na bu reer pareegul nag ah bu reer pareegul xanaa comme mënoo ko muñ nga xaar ko kon ngoonal xam nga ki ki invité kooku yaa am ndigal ndigal koy jeexal nay wax ki ni la ñëwal ki nga woo mu ne la yegsil ak soxla soo xam ne su jamp la su mënta xaar arab yi dañuy wax ni li kulli qaidatin istithna règle boo gis am na exception waaw kay kon su fekkee ngant yii dafa daje su boobaa nit ki mën naa dem waaye nag bu dul loolu moom julli gee tëddi moo gën a nekk sunna allahuma lu dul imam buxaari indi na benn xadis tuddee ko baabun assamaru fi l ilm maanaam buntu bii kat ngoonal julli gee ba noppi nekk ci ay yeneen i mbir waaye fekk xam-xama koy waral ci la indee xadis ab yéen sasam daana julli gee ba noppi nekk ak aw bakar ci ay suuraag yu demee noonu kon yu mel noonu suuraag diisoog am ganak wala ñu invité laag wala soxla soo xam ne mënul xaar ba suba wala muskila bu ñuy lijjanti ila axiri ci yooyu nga xamante nii moom ngànta ko waral waaye bu sagoron am rek dee su ko def sunu borom subhanahu wa taala mu ni alam tara xanaa defoog seetlu xanaa gisoo ila alladina ci gaa yi nga xam ni tawallaw dañoo méngoog xaritoog qawman aw nit woo xam ni gadiba allahu alayhim yàlla daf leen a jéppi yàlla daf leen a mere ay jii nag mbokk yi mi ngi tëkk ak a menacé képp ku gëm yàlla koo xam ne da ngay allié ak ay yéefar rawatina ak ay yahud ay juif ak mboolem xeeti xaritoo gu dox sa digganteeg ñoom ah moo xam tourisme moo ko waral moo xam koom-koom moo ko waral moo xam alal moo ko waral maanaam allié am na ci seen digganteeg jëflante bara tax ba ndang ah sunu borom mu ni yow day ku yées nga yow ku yées nga ndax xam nga ni ku yées ku xaritoog moom yées sunu borom mu ni alam tara xanaa gisoo ila alladina ci gaa yi nga xam ni seen doya di ngëm yàlla dafa yegg ci tawallaw ñuy méngoo ak a xaritoo qawman aw nit woo xam ne gadiba allahu alayhim yàlla daf leen a jëppi daf leen a mere muy yahud yeeg yéefar yi sunu borom mu ni maa hum minkum ñoom day bokkuñ ci yéen ñoom ñi xaritoog jële wala minhum te bokkuñ ca ña ñuy xaritool loolu nag am naa fekk ko man ah xam naa bu xusayfa dellu siwaatoon fii ñu ni ko xusayfa koo nuyu bu dem naa fekk rek loxoom dina kolewu ci sa loxo dana bari ñu dul nuyoo xusayfa saaxibu sirri rasulillah bu dellu si waatoon ñu ni ko koo nuyu rek mu dim naafeq sa loxo dana kolewu ci loxoom jàpp naa dina bari ñoo xam ne danañ bank seen loxo tey naafeq ni mu bare woon Madina bu njëkkoon danga daan am téeméeri jullit ñaari naafeq wala benn tey da ngay am téeméeri jullit am juróom-ñeenti téeméeri naafeq nga boole muy junni loolu moom du mu baalaxa li may wax nii lu am la tey junni boo wàññi boo sàggantul da ngay am juróom-ñeenti téeméeri naafeq ak téeméeri jullit ndax dëgg gi ni mu manqué nga gis tey yàlla doon tere yépp ñu ngi koy def atte woo lu yàlla araamal ñu atte woo ca gërëm atte boo xamante ni suñu borom da koo araamal aliyeeg ay yéefar gërëm ay gërëmloo ay yéefar ah dag daj dajeeg dajeeg sax noon ngir fexeel sa mbokkum jullit ba am ay jullit yoo xam ni ci biir jullit ñi la ñuy nekk lay seen liggéey mooy dajale ay secret di ko yëg noonu lislaam yi loolu mi ngi am ba tey ba fii may wax ak yéen barab bu ne ci àddina bi na nag toon luñ ko bàyyi xel foo mën a nekk ci àddina bi xam na sunu moo ne mbokk mu fi mos a nekk jazakallahu xayran damaa def benn darsu bu mel nii fii ci jàkka ji ba ne leen boo wattuwul sax ñu ni sunu jàkka ji mi ngi fi fekk moom gan la fi mu mu ni mu ni keroog bi nga waxee loolu ni ma rusee mu ni maa ngi yaakaar ni man ngeen di waxal ma ni ko déet wax dëgg yàlla koy waxu noog yow nag gis nga mbooloo moo dem yëgal ni gaa yaa nga fay déglu moom la isxaaq ibni mudarib waxoon arab yi nee nañ moytu leen miir yi booy wax del moytu sax miir yi ndax miir yi dañuy déglu ñu ne ko ndax alquran léeb na léeb mu ni mel mu ne waaw waaw yàlla mu ne wa fiikum sammaa'uuna lahum mu ne wa fiikum sammaa'uuna lahum mooy gaa yi ngi seen gaa yi seen i nopp gi ci seen biir de am na ñoo xam ne fi ne lu ngeen yendal fii rek mu fanaani foofu loolu nag waxuma ko pour ñu di ko bàyyi xel ak di ko tiit déedéet maanaam junit bi benn problème la war a am mooy boromam subhanahu wa taala kooku kooku moo ko jaaxal waaye keneen ku mën a doon na nga yëg ni wala yaxiqu lmakru sayiu illa bi ahli man xafara xufratan li axihi waqaa fii ku gasal sa bokkum julit kaam bu tàbbi ca loolu nag gis nañ ci ay mbir yu bari am na ñoo xam ni yàlla def na ci loolu ci lañ tuubee waa joo xam ni ci benn jàkkam ci jàkka yu siiw ci Dakar lay ñëw ajjuma ju jot day ñëw mel ni gaa yi mel ñëw di déglu di jël nekkat ci agent secret ci la bokk waaye yàlla mi nga xamante nii moom kenn mënta saaj ay coton ci nopp ba tax njub li war a jàll ci xol bi du jàll mu dem ba ndekete loolu moom moo sabab mu tuub moo ko wax ñooña xamal leen ni leen man mii samay document mi ngi nii agent secret la loolu moom moo fi indi woon xamal leen ni leen bàyyi leen xel jataay yi ngeen daje yu bare bare bare bare gaa yaa nga fa waaye nag insha allah yàlla moom subhanahu wa taala yëfam yii fa mu war a yegg dana fa yegg bi xubbi muhibbin wa bughdi baghid ku bëgg bëggal ku bañ bañal waaye borom bi subhanahu wa taala dana yeggale yëfam yi te kenn mënu koo gàllankoor sunu borom mu ni am na ñoo xam ni yàlla jéppi na leen moo taxit dañuy ànd ak ña sunu borom jéppi maa hum minkum faruñ ci yéen wala minhum faruñ ca ñooña ñoom daal cikkiñ ca kañ lañ cikkiñ ca kañ nga xam ne tegun tànk fii tegun tànk fële mudabdabina bayna dalik laa ila haulay wala ila haulay sunu borom ni duñu julit duñu naafeq ñu ngi ci diggante bi ci kiñ ca kañ mooy nekkoo ci kër gi nekkoo ci naaj bi doo julit doo yéefar weexoo ñuuloo gis nga sunu borom ni wa yaxlifuuna foo leen fekk ñu ngay giñ ala alkadibi ci ay kàcc wahum yaalamuun te fekk ñoo la gën a xam ne dañuy kàcc billahi wallahi tallaahi joo xam ne su waay soo ko déggee sa fir bi day tëb te fekk waxuma la sax day fen waaye moom xam na ne day fen la aboubacar waxoon musaylimatul kazzab mu ne ko yow sax xam nga ni sa alquran ji da ngay fen yow yow balaa nit ñi xam ne yaay fen yow mii sax xam nga ni da ngay fen yaxlifuuna ala alkadib dañuy giñ ci ay kàcc wagum yaalamuun te fekk xam na ni mbokk yi lii garaaw na de ndeysaan moo tax it dañoo mën a trompé ku gëm yàlla wa qaasamahuma foofu la ñu fiy tàmbalee woon bi gurur billahi wallahi tallahi garab gii soo ko lekkee nangam nangam aadama ni xaarama dem lekk ca parce que qaasamahuma daf ko giñal bi gurur ci ay wor allahu akbar bi gurur ay wor xam nga gis nga ku gëm yàlla soo ko giñalee rek ndeysaan da nga koy nax loolu laa isa ba ba mu ne waa ji baal yëfi jàmbur yi ngay jël mu ne ko billaay jël mu yëfi jàmbur mu ne ko sa loxo mee wax dëgg sama bët yee waxu dëgg kon loolu mooy def yow gis nga nit kaa ngi jël lu moomul nga naan ko sama bët yee waxut lu am dafa fekk ni ku gëm yàlla subhanahu wa taala moom saa boo ko giñalee ci yàlla akari ngiñ mooy lan mooy lii ma bëgg a wax xam naa du ngeen ko gëm pour ngeen gëm ko damay seet lu rëy a rëy loo xam ni moo gën a rëy lépp ma doxale ko sama digganteeg yow pour nga gëm ma looloo tax waroo giñ di fen looloo tax waroo giñ ci ko dul yàlla boo giñee fen def nga njaaxum boo giñee ci ko dul yàlla moom def nga ni njaaxumi njaaxum ndax mooy li gën a rëy ci lu ma mën a teg ci sa kanam pour nga gëm ma mooy diw mii ma giñ ci moom kon kon kookaay gën a foor yàlla ci yow wala ayaasu billah suñu borom ni aadda waajal na allahu yàlla lagum jeel leen adaban shadida mbugal mu méttee méttee métt nga xam ngeen ni suñu borom mbokk yi lum ni métti na métti na gaa yi nekk ay naafiq nga xam ne bokk na ci seeni melokaan ida qaamu ila salaati qaamu kusaala buñ jógee ci julli dañuy tayal bokk na ci seeni melokaan yurauna annaasa ngistal moo ëpp ci seeni jëf bokk na ci seeni melokaan wala yazkuruna allaha illa qalila duñ tudd yàlla lu dul lu néew bokk na ci seeni melokaan mooy ñoom dañuy gërëm atte boo xam ni nekkub atte yàlla akub yonentam di ca kontaan bokk na ci seeni melokaan ida raaytahum tuajibuka ajsaamuhum boo leen gisee rek daanu leer wa in yaqulu tasma li qawlihim bu ñuy wax ak yow moom loo jàppoon di nga ko bàyyi déglu leen ka annahum xushubun musannada da nga yaakaar lu dëgër la mi ngi mel ni bant bu ñu wéer bokk na ci seeni melokaan yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim ñàkk wóolu seen bopp tax na fi mu nekk ni li wala fi naan ku moom xar mi rek nga bàyyi buum gi xam nga ne loolu koy ab sàcc koy def naafeq fi mu nekk ni looy wax lu ndaw ndaw mu yaakaar ne fi ne ci kawam nga jëm si suñu borom ne yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim tell joo dégg rek yaakaar nañ seen kaw la jëm si mu ne humul aduw kii mooy noonu yi moo ne ñun mbokk yi dañoo yaakaar ni yéefar bee gën est ce que xam ngeen naafeq moo gën a garaaw noonu ab yéefar moo tax yàlla mu ni humul adow andi alif ak laam lil maarifa noonu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waa ji la xam nga yéefar bi moom ma nga fële nee na la laa abudu ma taabudun nga ni ko wala antum abidun ma abudu mu ne wala ana abidu ma abattum nga ni ko lakum diinukum wala diin mun la ndokk kii nag moom day ñëw ni la maa yow ñoo bokk lu nu gëm di la giñal ci yàlla ah soo waxee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daanu leer saa saa sax mu bënn ba di daal di jooy jooylu ndekete yoo sum waaye jooy yu ñu togg la gis nga bu gisee nit ñi moom mën naa julli julli gu foor waaye bu fekkee nekk na ca biir këram mbaa ca nekkul ca mbooloo ma rek sum waaye mu daal di koy def julli ginaar cof ko jot cof daal di dem yoonam day bàyyi ba jant bi waaj a so fa muy sooyee rek mu ne xaaral ma ju fay saa tàkkusaan ji gaaw parax paraxee ko nelawal nelawal nelaw ba jant bi jóg mu ne xaaral ma jóg gaaw njëkkanteeg jant bi melokaan yu baree bari ñëw na ci alquran yàlla di leen melal ñoom naafiq yi moo tax suñu borom mu ne la ma leen di fayee mooy fa gën a xóot ca sawara fi darkil asfali min an naar fa gën a xóot ca sawara moo tax ab julit war a góorgóorlu digganteem ak boroomam ci di ñaan suñu borom mu musal ko ci nifaaq gis nga naafiq day waral ngëm yàlla du mën a nekk ci xol gis nga naafiq day waral doo yëg cafka ci yàlla subhanahu wa taala gis nga naafiq day waral dootoo mën a defati ngir yàlla gis nga naafiq day delloo gannaaw ngëm yàlla moo tax boo seetloo naafiq yi nekkoon ci jamono yi sasam yàq dañ ci diine loo xam ne daanaka kenn yàqu kon koo koy noon bi li tax mooy noon bi mooy daf laa jege lool te ku la gën a jege gën a xam sa biir ak sa biti sunu borom ni aadda waajal na allahu yàlla lagum ñeel leen adaban shadida mbugal mu tar tamit innahum ñoom saa a bon na yées na maa kaanu yaamaluun liñ doon jëf tey jii ñaata ay julit ngay gis wi ay yeeg ay yéefar ngir dal ci kaw ay julit guerre yi ngeen dégg ci àddina bi ñaata guerre ngeen fi dégg yoo xamante ni yéefar yi ci aéroport julit lañu la julit ñi la ñuy mën a taxaw pour sànni seen rek roquettes yi ñaata réewi julit ñooy nangoo ubbi seeni frontière ngir noon yi jaar ci pour dal ci seen mbokki julit yi ñaata julit ñooy tëj seeni frontière ngir baare julit yi nga xam ne ñoo sonn pour seeni noon tànc leen lii may wax lépp mi ngi am te loolu mooy la gën a kawe li gën a suufe nag li gën a suufe tey ngay gis ay julit yoo xam ni subhanallah alazim wallahi dañuy jaay seen ngor jaay seen pas-pas jaay seen diine ngir koom-koomu àddina kaay nekk agent secret di indi information yu jullit ñi nga nangu ñu lay fay salaire ci loolu nga nangu ko di ko lekk maanaam mu wóor la ne tey bu ñu dalee ci sa mbokkam jullit ba gaañ ko li ci nekk ci ay responsabilité yow yaa ci ëppale yow segam doo gàddu lépp suñu borom mu ni innahum ñoom saa a bon na maa kaanu yaamalu lañ doon jëf ittaxadu sunu borom yi dañoo jàpp aymaanahum seen ngij yi junnatan def ko pakk mooy protège tey ki nga xamante ni day xeex li muy yore muy genre lu mel ni ab layu ci weñ di junna di pakk nga xam ni jaasi ngay yore fii yore pakk bi fii soo xàccee dóor waa ji moom bu xàccee dóor la rek nga baaree ko pakk bi ba jaasi ji du la dal suñu borom mu ni ñoom pour ñu mucc seen ngiñ yi lañ jël di ko baaree jullit ñi pour ñu tromper leen jàll ittaxadu dañoo jàpp ay maanagum seen ngiñ yi junnatan def ko pakk ba kenn du yegg ci seen kaw nga xam ne bu la giñalee ba bàyyi rek yow nga yaakaar ni waa jàngoo ñaata nit tey lañ tromper ci bunt bi giñal la ci yàlla xeeti ngiñ yoo xam ne subhanallahi alazim sunu borom ni fa saddu ñuy baare an sabilillahi ci yoonu yàlla wi falahum ñeel na leen adabum muhin mbugal mu doyadi ba gën a doyadi jëf jëñ doon def ñoom ndax ku ne xam ne ne ak naafiq doyadi mënu ko paase olof yi sax olof yi sax léeg-léeg buñ la xaseeg naafiq da ngay dégg benn mag muy def yëfu naafiq da ngay dégg ñu ne ko yow mag bu naafiq nga yow gis nga kàddu googu daanaka jar na xar suuf su dugg ci ndax ku xamoon la mund waxuma la jëmmi baat bi kese waaye ku xam baat bi la mund xam nga dafa am baati olof yoo xam ni ñun dañoo yaakaar ni baat yi dafa simple fekk baat yi daa am lu mboot de dinaa koy faral di wax mbokk yi léeg-léeg nga dégg ñu ne hey yow de sa waay ni nga féexee xam ngeen féex lu muy tollool ci olof tixit gis nga képp ku ñi da ngaa féex rek da ngaa tixit olof comme ni da ngaa féex fekk mag nga dalaa bañ a wax da ngaa tixit xam nga da ngaa tixit da ngaa féex ko gën a gën a yomb moo ko gën a woyof waaye saa bu ñee la da ngaa féex rek xam ne da ngaa texit lañ la bëggoon xale la ñuy wax da ngaa féex mag da ngaa xale la ñuy wax da ngaa texit yow jugal fi waaye ku texit nga yow xam nga mag bu la ko wax da ngaa texit waaye boo ne ko da ngaa féex rek féex ay texit gis nga ak naafiq ci boppam doyadi maanaam doyadi ci maanaam am mag doyadi mi ngi yem ci nekkum naafiq moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni mbugal mu doyadee doyadi te it lan toog ni ya du leen jariñ anhum fa ñoom amwaaluhum seen alal ya wala awlaaduhum seen doom ya du leen jariñ loo ca mën a fàgg loo ca mën a am salaire buñ la ci mën a fay jaru ko parce que jaay sa mbokkum julit wallahi tey am na ñoo xam dañuy jaay seeni mbokki julit parce que information bi tax ñu mën a dal ci sa kaw mbokkum julit wala xam ci moom ça veut dire que yaa ko jaay yaa ko jaay defe naa buur yi ngeen fi seen sax dañ ko doon defante buur yi dañ ko doon defante da ngay jël benn waay bu bokk ci buur diw nga fay ko pour mu jaay la secret yi nekk ci biir buxtu nasar dañuy wax ni bi muy xeex dafa jël benn waay boo xam ne technicien dëgg la ci naafiq xam nga naafiq yi dañoo gën a nekkante ay technicien la da ngay gis koo xamante ni sumu waaye diplôme yi gën a kawe ci naafiq am na ko maanaam bu bu bu jugoon pour tëral benn plan ci nifaaq moom day jàll moom buxtu nasar jël waa ji ni ko da nga may demal ci buur bi secret yi fu muy def ay gàllaajam fu muy def ay nangam mooy seen yooyu xewoon rek donte xaraam na mu di ko def waa ji sum waay nekk technicien boo xam ni fexe ba buxtu nasar gañe buxtu nasar ni ko gis nga su ma gañee yaay nekk ministre bi ma gën a jege yow laay gën a fal waaye buxtu nasar ku yeewu la buxtu nasar dafa gañe ba noppi waa ji kontaan di cëppi cëppi ni ko léegi nag sama poste bi nag mu ne ko yow yaakaar nga ni man dof naa ndof gu joy ni di la jël nga di ma gën a jege nga jaay ma comme ni nga jaayee sa waa ji yow waa ji yéen a àndoon di nga jaay ma kon yow su ma àndaatee yow ma jaay la di yow bu ma la reyut santal yàlla jëlal li ma la jox te nga jóge fii waa ji jël lim koy jox mu jóge foofu dem gis nga buxtu nasar ku yeewu la kon kooku boo ko jëlee da lay jaayaat moo tax damay toog ak yàgg damay déglu seen nu mu tuddati rajo yeeg seen politique yeeg nangam koo xam ni su ma yaa ngi ànd ak diw ci parti di ko jàppale di ko tagg di ko wayal ay maamam aaye joo mën a indi ci alquran sax mu méngóog ay maamam nga jàngal ko ko ah di xas sa adversaire xëy benn bis bàyyi ko di xas ka nga àndaloon ngir ànd ak keneen ki la uuf daf dëgg la ki la uuf daf dëgg la maanaam loolu dafa dalul xel dafa wóorut déedéet zaaru nifaaq yooyu même ci l'islam boo ko defoon boo ñëwee di tuub si do ay tuub naa astaghfirullah alazim wa tuubi ilay ma julli ñaar rakk fii ñëw ci mbooloo mi affaire bi jeex commencé góorgóorlu di yar bi sikki ma ka nangam affaire yi génnewu la ci de gis nga naafiq soo ko defee affaire naafiq yi ba ngay tuub si wala tuumaal gor ah wala wor zaar yu garaaw yooyu wala tubbi gis nga yooyu illa alladina amanu taabu wa amanu wa aslahu wa bayyanu da ngay tuub gëm yàlla leeral ni yow caay-caay gii nga doon def mu leer ba nit ñi xam ko wa bayyanu da nga day leer nañ ah ñeenteel bi mooy wa aslahu li nga jotoon a yàq tamit da nga koy rectifier moo tax ci jamonoy saxaaba ya am na yooyu bu la musaan a gaar bala ngaa duggaat ci biir mbooloo mi bala ngaa bala ngaa saf dara ci biir sàppe si tey nga wax lu sa picc da ngay gis ku daan ñëw ci jàkka ji di julli si sum waay daanaka comme picc muy julli si rek picc xam nga picc mu ñëw ci biir sàppe si xam nga ne moom ku geesu rek daanaka yow yaa ngi koy bëgg a pàdd da ngay gis kenn du la xoromal looy wax kenn du ci dugg parce que ñëpp la sib dañ laa seexlu comme ni ñu seexloo ay dem àll parce que jëf yi nga def moo tax du tee nag loolu tekkiwul mooy yàlla nangu na sa tuub wala déedéet loolu sa diggante ak sa borom la waaye pour ñu yar la ku mel ni Omar danañ wax ne kii bu ko kenn falati poste xoolal ku mel ni ku mel ni Tulayhat al Asad yi yéen ko fàttaliku ci xayat saxaaba yi ban bàkkaar la defoon tuleex daa tubbi woon gan gi gan gi gan gi gan gi yow daa mel ne yaa gën a kii gaa yi fi nekk de te gaa yi fekke woon darsa yow fekke woo ko di gan gi tuleex dafa tubbi woon génn ci lislaam yemul ca loola muy def la ah woote woon nu bu wax ab yonant la tuleex bokk na ci ñi doon woote woog yonant yàlla def muy jàmbaar joo xam ne sumuwaay moom bokk na ci ñi ñu doon wax naan boo koy ëffal da nga koy ëffal ak cent personnes maanaam da ngay indi cent personnes ci yéefar yi génn tuleexa wala nga indi cent personnes génn miqdaad wala nga indi cent personnes génn ku mel ni Hamza wala nga indi cent personnes génn ku mel ni aswad kële miqdaad ibn aswad wala ali wala jaafar gaa yu mel noonu am na ñoo xam noonu lañ meloon wala ki nga xaalid ibn walid de ko ko ëppoon na cent personnes sax kooku moom kooku moom la waajaloon wax naan yahtasu kisra ala kursiyihi faraxan min xawfihi wa muluku rumi yaxshaahu nee na buur ba nekk kisra nee na boo taxawee ba ca peggam nga ni xaalid rek muy nga seen siis bi commencé yëngatu mu ne yahtasu kisra ala kursiyihi faraxan boo nee xaalid rek mu ni siis baa ngay commencé yëngatu ndax tiit buur yi saay-saay yëpp dañ koo ragaloon Xaalid a ngi ñëw moom daanaka rek mooy bomb bomb yaa ngi egsi am na benn waay boo xam ni Aboubacarin Siddiq da doon wax naan ñexalu fasam ci biir mbooloo mi rek moo ma gënal téeméeri góor ku may fàttali tur waa jooju xaaxaa ibn amrin allahu akbar dañuy waajal xare aboubacrine daal di dégg fasu qaaqa ñexal mu ree mu ni ñexalu fasu qaaqa ibni amrin day gënal na ma téeméeri góor maanaam waxin la wu lay wane laa sokka ñexal fas du gën téeméeri góor maanaam dalaa bëgg a xamal ni ñexalu fas wi fi mu nekk nii mi ngi poids bi muy peese mooy cent personnes cent jàmbaar ñoo taxaw fi mu nekk nii qaaqa ibni amri ñooñu mbokk yi faw ñu xam leen ñii wallaay mbokk yi liggéey nañ lislaam loo xam ni jaaduwut ñu bañ leen a xam nga xam ni ca xurubu ridda bañ ne indi leen madad renfort gis nga jullit ñi dañoo tiit ba jàq waaye bañ séenee qaaqa ibni amrin di ñëw rek daanaka ku ca yoroon jam-jam sax fàtte nga say jam-jam ndax góor la woon goo xam ni moom xalaatoo mukk xalaatoo ci kaw suuf jàmmaar la moom comme ñu naan kaay la ñu ruufoo balaa ñuy songoo ñu génn fi benn yéefar génn fi benn xalaatu naan da ngay song maanaam songoo xanxaa moom mooy daanaka saaf sa bopp rek ku bëgg a saaf boppam da ngay dem nga songoo xanxaa ibni amri gis nga borom bi subhanahu wa taala mu ni seen alal yi du leen jariñ seen doom yi du leen jariñ fa yàlla dara ulaayika ñooñu asxaabu naari ñooy waa sawara hum fiha xaalidun dañuy sax dàkk ca biir sawara lu tax parce que jëf yi bon yi ñu doon def inna al munafiqina fi darki al asfali min an naar fa gën a xóot ca sawara te du ngeen am ku leen dimbali sunu borom mu ne yawma bisab alaxira buñ fa yeggee it nag yabaasuhum allahu yàlla dekkal leen jamian naafiq yëpp fa yaxlifuuna lahu ñu ngay giñal yàlla kama yaxlifuuna lakum comme ni ñuy giñee maanaam gis nga tàmm tàmm lu baax tàmm tàmmal lu baax yàlla xam ne gis nga caay-caay boo ko tàmmee même boo demee ba sukuraat doo ko mën a bàyyi moo tax foofu laay sukkandiku wane ne mbokk yi lu waay ji tàmm na nekk lu baax est-ce que xam nga ni mën ngaa nekk jullit bu sàggan di déglu musique nga dem ba toll ci sukuraat fekk déglu musique ay nekk sa xel Ibn al-Qayyim ne da ngay gis koo xamante ni da ngay wax ak moom du la faale naan morso sàngam tegal leen ma ko mu ne ki nga xamante ni problème am moo nekkoon jigéen ah nga xam ni fi mu toll fa lay yuuxu buñ nee ko diw mi ngi lay seet si rek daal dinay tëb daal di wér ndaw si daal di gedd tourné ndax loolu mu tiit ba sukuraat dee foofu foye foye ay mokkeek ay théâtre ay caaxaanukaay di caaxaane alquran am téere yàlla bi tee ngaa tuub tee ngaa sukkandiku ci alquran def nangam yaa ngi sukuraat tee ngaa tuub mu ni indi leen ñu defee day tuub mu yëkkati téere bi ni inni akfuru bi rabbi hada al mushaf man weddinaa borom téere bii ruuga wat loolu li mu lay wan mooy gis nga doomu aadama looy tàmm na di lu baax balaa nga caa sukuraat gis nga nit day taamu naafiq ak fen dem ba ci yàlla du ko mën a bàyyi yawma yabaasukum allahu jamian su leen suñu borom dekkalee fa yaxlifuuna lahu ñu ngay giñal yàlla lan la ñuy wax wallahi rabbina ma kunna mushrikin yow defe nga ne dem ba ci kanamu yàlla yàlla naan la da nga doon bokkaale nga ne ko wallahi yàlla daawu ma bokkaale ci àddina koy nax ah waaw kon xanaa yàlla daa xam loolu nekk ci àddina bañ ko koy nettali moom suñu borom ni undur xoolal rek kayfa kazabu ala anfusihim di fen di fen di fen di fen di fen ba fen ci kanamu suñu borom xoolal mu ni undur kayfa kazabu ala anfusihim di fen a fen a fen ba fen ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala wallahi rabbina ma kunna mushrikin suñu borom mu ni fa yaxlifuuna lagu ñu ngay giñal yàlla pour bëgg koo drible jàll kama yaxlifuuna lakum comme niñ leen doon giñalee pour nax leen ci kaw suuf wa yaxsabuuna ñu ngay yaakaar ni annagum ñoom kan ala shay'in ñi ngi ci dara xam nga naafiq bu ñu billahi wallahi tallahi su wala nam may nax yàlla naa sama nangam nangam mën na cee ñàkk baayam ñàkk ci maamam ñàkk ci amam problème xam nga bon bonu bonu naafiq moom ku fa yegg moom daanaka mën ngaa gi ñàkk sa baay ñàkk sa maam ñàkk sa léeg-léeg nga dégg ku ne ak sama bakkanu doom te fekk yàlla xam ne li muy wax sa dara du ci dëgg sama bakkanu doom ma ñàkk sama ndey ma ñàkk sama baay ma yow kay wax dëgg yàlla booy fen fenal bu ci ñàkk sa baay sa baay kay bu ko ci soxal bu ci ñàkk sa doom sa doom kay deful dara waaye maanaam bon ci boppam moo bon maanaam ku bon ci boppam da day bëgg ñëpp bon ni moom li wala fi naan ku lakkale moroom lay bëgg suñu borom mu ni ña ngay giñ te fekk li ñuy wax du dëgg wa yaxsabuuna ñu ngay yaakaar ni annakum ala cheyin ñoom de ñu ngi ci dara suñu borom mu ni ala innakum ñoom de humul kaadibuun ñi ñooy ay kàcc kat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg di kàcc ba kanam suñu borom te mënoo koo bàyyi suñu borom mu ni istahwada alayhim istahwada alayhim fàdd na leen alcheytaanu cheytaane fa ansaahum mu fàttaloo leen dikra allahi tudd yàlla cheytaane mën na leen fàdd leen xam nga ki la fàdd ba nga ni këlëb suñu borom ni kooku mën na la seytaane mën na leen fàdd leen fa ansaakum mu fàtteloo leen dikra allahi tudd yàlla est ce que xam nga ni seytaan da lay fàttaloo tudd yàlla ah
Féréwli.
féréw li féréw li de baatu wolof la bu bees ci man kon fab bi fab bi ak fàdd defe naa am nañu wutante kon fab bi nit mën naa nekk ci aw yoon di dem te fekk yoon wa mooy dëgg fa la war a jaar seytaane ñëw def ay naxyam ba dévier ko jàddloo ko mooy fab bi na ko ca yoon wam jaaroon te loolu nag moom la yent bi waxoon inna seytaana qaada li ibni aadam bi atruqihi yoon yi ngay jaar yépp dafay taxaw pour fas yéene laa fàtte nga tourné suñu borom ni fa ansaahum dikrallah mu fàttelu leen tudd yàlla gis nga ca suratul kahf wa ma ansaanihu illa asheytaan asheytaan gis nga seytaane min charri alwaswaasi alxannaas alxannaas mooy koo xam ne day ñëw di def ay pexe pour fàttaloo la yàlla gis nga sooy tudd yàlla rek muy daw moo tax nga war di bari looy tudd suñu borom subhanahu wa taala suñu borom mu ni ulaika gaa yooyu xizbu shaytaan ñooñu ñooy mbooloom shaytaane mi ala dama ni inna xizba shaytaani mbooloom shaytaane bi humul xaasiruun ñoo ñoo ñi perte ñi yàlla suñu borom boo leen ci musal suñu borom mu ni inna alladina gaa yi nga xam ni yuxaadduuna allaha dañuy diigat yàlla akub yonenteem di moy yàlla akub yonenteem di jadd ci yoon yi suñu borom santaane akub yonenteem di jéem a critique yi tamit njàngalay lislaam suñu borom ni ulaika gaa yooyu fil adallin ca ñu gën a torox ñu dàq ci yërmande suñu borom ca lañ bokk al adallin al ashqiya al mabudin al matrudin an alsawab ñi gën a sori njub te al suñu borom ni ñoom ca lañ bokk yàlla mu ni ñi nga xam ne dañuy jéem a diingat yàlla akub yenenteem di critiquer suñu borom ni ñooñu ñooñu alkuñu nag ñooñu ñoo alku ñoo sori njub suñu borom ni kataba allahu yàlla ne na dogal naa dogal na moom suñu borom ni la aglibanna dinaa not dinaa gañe ana man yàlla wa rusul yi ak samay ndaw loolu mooy tolloog inna la nansur rusulana walladina amanu fi lxayaati dunia jaweesoon ah loolu mooy wa kaana xaqan alayna nasru lmuminin ah loolu mooy in yansurkum allah fala galiba lakum mooy ayat yi nga xam day wane ne yàlla day jàppale ñu gëm yàlla sunu borom ni kataba allahu yàlla dogal na ca dogal yu yàgg yéen la aglibanna danaa not gis nga yéefar yeeg jullit ñi bu ñu dajee jullit ñi yéefar yi gañe loolu tekkiwul ni yéefar yi gañe nañ de xam nga gañe mooy lan mooy fexe ba faagaagal diine yàlla ji tulool du ma sa nekk waaye kataba allahu la aglibanna ana wa rusuli est ce que xam ngeen ni benn yonent musta dem guerre ah ñu rey ko ca guerre ba musul am ndax généralu guerre foo ko rayee rek gañe nga yonent yi ngay dégg yëpp afa kullama jaakum rasulun bi ma la taaba anfusukum istakbartum fariqan kadabtum wa fariqan taqtulun amul yonent généralu guerre bu ñu mas a rey musul am moom kay feneen lañ lay reyee parce que guerre boo reyee général bi rek gañe nga te yàlla moo ni dinaa not maag samay ndaw sunu borom mu ni inna allaha yàlla qawi ku am kàttan la moom sunu borom aziz ku not la ci nguuram xam nga yéefar yii wallahi tëwuñ suñu borom koo xam ne bu ko sooboon kun rek lay wax suuf si fàq màbb leen ñoom ñëpp affaire bi jeex ñu jàll ci leneen xam nga ni ki man loolu gars yi jaaxaluñ ko waaye nag gis nga bàyyi gi muy bàyyi yéefar yi léeg-léeg ñu jékk julli ñu dal ci seen kaw ay xekam yu rëy da cee nekk bokk na ci mooy ka war a shahid bu loolu amul woon moom du am shahada di ki war a shahid du am shahada ki am ay gaañu gaañu gaañu gaañu yooyu jural ko yiw rëy du ko am jullit bi doon nelaw du yeewu te it nag damay faral di wax ni gis nga menace dafa jig lislaam gis ngeen tey jii jamono bi ñu toll tembe gis nga même boo nekkoon ku daawul topp ay information sax mbirum Palestine mu ngi lay yitteel muy thaanil xibla tey ñaareelu xibla bi nga xam ni mooy xiblay jullit ñi nga gis tey jullit ñaa nga fay sonn xeeti coono boo xam ni yàlla rek moo ko xam ci seeni noon mooy li ma doon wax sànq seeni noon di allié ak ay réewi jullit pour dal ci seen kaw te loolu mooy li am ku wax mooy li am ku noppi mooy li am ndax xam xam ngeen ni am nga am na réew yoo xam ni bala nga caa mën a am accès pour def la nga bëgg a def ci réewu jàmbur ngay jaar bu jàmbur nekkee julit nga siñante moom ay seen xamu diplomatie yooyu ñuy wax yooyu wëlbati ko daal dal ci kaw sa mbokkum julit sunu borom mu ni laa tajidu doo wër mukk ba gis kon saa bu amee rek xamal ni li nga foogoon moo amut aaya ji déglu leen ko mbokk yu baax laa tajidu sunu borom mu ni doo wër ci àddina mukk ba gis lii saa boo ko gisee rek xamal ni la nga foogoon moo nekkut waaye lii moom doo ko mën a gis te yàlla xam nga ni lum ni doo ko mën a gis rek doo ko mën a gis laa tajidu doo fekk mukk ci kaw suuf xawman aw nit woo xam ni yuminuuna billahi gëm nañ yàlla wal yawmil axiri gëm nañ alaxira dan taxaw nga di leen fekk yu waa duuna ñuy aliyéeg di dimbalanteeg man koo xam ne xaadda allaha wa rasula dafa noonoog yàlla ak yonenteem ñu aliyéeg moom loolu doo ko gis mukk kon saa boo gisee jullit buy allié ak bu yéeféer gëmal ni kon kii daa gëmut yàlla loolu mooy wax ja allahu akbar xaw ma ndax aaya ji mbokk yi toq toq na ci suñuy nopp wala déet addina wargal kap suñu borom noo ne doo gis mukk ab jullit bu gëm yàlla gëm alaxira di allié ak allié di dimbalante ab yéeféer pour mu dal ci kaw jullit même bu dalul ci kaw jullit ngay dimbalanteeg moom wala nga di ko bëgg wala nga di ko sopp sunu borom mu ni saa boo gisee ku ko def xamal ni gëmut yàlla gëmut yowmal qiyam laa tajidu doo gis mukk doo fekk mukk qawman aw nit woo xam ni yuminuuna billahi gëm nañ yàlla wal yawmil axir gëm bis penc yu waadduuna ñuy xaritoog man koo xam ne xaadda allaha dafa noonoog yàlla akub yonente ak xarit gulen boole nag aliyeeg moom jàppalanteeg moom dimbalanteeg moom kontaan ci moom jox koy information nangu mu def base militaire sa dëkk yooyu yëpp lépp ci la bokk parce que jàpp naa ni ka ka bëgg a dal ci sab noon nga accepter ko yii la muy tekki mooy kon laa tajidu qawman yuminun doo ko gis kon boo ko gisee kon kii daa gëmloon yàlla parce que yàlla li mu doo ko gis kay doo ko gis nga ni ha sunu borom mu ni waaw waaw walaw kaanu donte noon ya dañoo nekk abaahum di seeni baay même bu dee seeni baay lañ aw wala boog abnaahum ñu nekk seeni doom kooku jege na lool aw wala boog ñu nekk ixwaanahum seeni mbokk yu le maanaam seeni frère aw wala boog ashiratahum seeni jegeñaale seen ak giir ku bokk ci sa giir maanaam ku bokk ci sa meen suñu borom mu ni ak kum ci mën a doon aaya ji ndeysaan mu fassiru ni dañuy wax ni walaw kaanu abaahum mi ngi wàcc ci abu ubaydata amir ibnul jarrah keroog badar dañu tëll bàyyi ji ni tëll mu ne ko buñ dajawaat maag yow yàllaa ma la gënal akub yonenteem bàyyi ji def ko caaxaan bu def ko dëgg rek bu telli bopp bi aw wala boog abnaakum seeni doom aw bakar amoon na benn doom bu ñuy wax abdourahman ibni abi bakar keroog badar fekk na tuubagul bi badar jàllee doom ji naan ko ay bàyyi yaa am sens yow de keroog waxoon jekku naa la jekku boo xam ni su ma xool woon ni yaay sama bàyyi keroog rek laa lay rey aw bakar ni ko billahi bu ma la jekkoo woon noonu faat naa la keroog ak am sens moom it ab bakar amul sens moom mi moo am sens ndax xam naa bu ñu ko faatoon ba tuubut xuma fu mu koy waxee ji aw wala boog ixwaanahum seeni frère aw wala boog ashiratahum mi ngi wàcc ci omar ak ali Omar ak Ali ibn Abi Talib donte nag al ibratu bi umumi lafdi la bi xusi sabab sabab mën naa ñëw ñu xam ne diw moo defoon nangam suñu borom tagg ko ca loola waaye nag képp ku ko def ba yowal qiyaam ca ka ka la gën a jege jàppal ni yow da nga dugg ci aaya jooju. suñu borom mu ni doo gis mukk gaa yi gëm yàlla di aliyéeg di méngoog di jaxasoog di xaritoog di jàppalanteeg ñi nga xam ne ay noonu suñu borom lañ walaw kaanu abaakum donte seeni bàyyi lañ. aw wala boog abnaakum seen i doom lan aw ixwaanakum wala seen i rakk ak seen i mag lañ aw ashiratakum wala seen ak giir lañ seen meen lan suñu borom ni ulaika gaa yii man lii gaa yi nga xam ne dem nañ ba yàlla moo leen gën a lépp ku noonoog yàlla akub yonenteem ñu mën laa ba ak loo leen jege-jege ulaika gaa yii yàlla mu ni kataba yàlla moo dogal rokkas roof fi qulubihim ci seen xol yi al iman a ngëm wallahi wax na dëgg wa man asdaqu min allahi xiila xam nga ni dem ba ak sa baay ak bàyyi ni mu mën a jegee nit nga mën koo bàyyi tout tranquillement ngir dafa noonoog yàlla akub yonenteem ay ji mbokk yi boo ko nattee tey ak li ma doon wax sànq da ngay xam ni shattaana ma bayna haulaai wa haula xam ngeen ni sunu mbokk jullit yooyu nga xam ne tey tembe ñu ngi leen di ñaanal di leen yërëmtul di leen xunuutal ngir fitna yu métti yu ñuy dund junj naa ko fi bërki démb te yàlla xam na ni addina bi yépp ñi ngi seetaan te damay faral di wax ni gis nga tooñ kenn du ko seetaan même bu dee ki ñuy tooñ daa néew doole gis nga nit da nga koy tooñ muy daw nga di ko tooñ muy daw bis bu sësee ci miir bi bu wëlbati soo ci sa kaw di nga yaakaar ne ki wëlbati ko ki ma doon dàq bokkuñu loolu nag ku xam addina ni mas di doxee dina xam kàddu gi ma wax mooy gan kàddu ñaareel nooteel gi dafa dem ba fi mu nekk nii a imma yi laa wax a imma yi nga xam ni ñooy waxal lislaam am na réew yoo xam ne bu ñuy ñaan sax duñ ñemee tudd Palestine yàlla dimbalal suñu mbokk jullit yi nga xamante ni ñu ngi leen di fitnaal kese ngir lan imaam joo yëkkati naam Palestine ñu tëj la ci kaso bi fi ne borom xam-xam yi ngeen xam-xam leen ñoo xam ni ñoom yàlla def na ya laa yaxaafuuna fillaahi lawmata laa im genn wàll gépp a ngi ci kaso bi min xaytu tashurun aw la tashurun da ngay gis réew moo xam ni lislaam lan koy yaakaaree say mbokki julit say mbokki pas-pas wallahi am na ci kenn ku dëgër ci seen dirigeant yi bi ñu ko laajee lan ngeen di séentu ci julliti àddina yi ndax ñu ñëw dimbali leen mu ne déedéet soxlawuñ ko ñu dimbali nan ñu ñaanal nan ñu ñaanal jàpp naa ne mbokk yi ki dem ba wax la loolu nga ne ci àddina bi mun nag ma ñaan amatoo ngant yow amatoo lay amatoo benn ngant saa boo leen ñàkkee ñaanal yëgal responsabilité boobu di nga ko layoo ak sa kanamu borom bu dee yëg nga parce que wàcc na la ñaanal wax naa leen ko fi bërki démb ci information yi mu jee jot maa ngi jokk ak benn borom xam-xam di ko laaj mu may wax ni lu te li may wax yàgg na fan yi passé maanaam ay fan la bi ma koy netti léegi léegi xam nga ci diggante bi kon yokkaat na ci lu ëpp 600 personnes ci liñ teg bët loo xam ne rey nañ leen te loolu bokkut ak ñi nga xam dañ leen a taal ñi ma ñi màbb ci seen kaw gisuñu leen yooyu yëpp bokku ci lu mat daanaka ay mille mille mille quatre mille personnes yoo xam ni ñëpp dañoo am ay blessures yu méttee méttee méttee ba jéggi dayoo tiim ab hôpital bombardé ko keneen xaw moo ni lii hôpital la mbokk mi xoolal sa sa mbokkum jullit moo xam ne mi ngi ci koor comme yow mi ngi ci guddeem yu mujj comme yow bisam yu mujj yàlla xam na ne yow yaa ngi tal ay lekk ay naan ay tey dafa tàng tey dafa nàngam moom problème am nekkut loolu problème mooy bakkanam mi ngi ci xottu gerte parce que ay noon ñoo jokkaloo ci àddina bi te kenn du ñemee tudd seeni tur nag te kenn du ci wax du discours boo xamante ni ab gouvernement moo koy def wala ministre du discours boo xam ne borom xam-xam moo koy ñemee def ci kaw min bar waaye nag dafa am lool léeg-léeg day métti ci xol waaye am na geneen wet goo xam ni ki xam taarix dana xam ni Palestine te diglu leen bu baax a baax Palestine ak Syrie seen ak yëngatu ci jamono bii déclaration am doole jullit ñi la maa la ko wax loolu fay na ci xadis Palestine ak Syrie seeni yëngatu ñi ko yëngal bu ñu xamoon li mën a jur ci ay résultat am na benn borom xam-xam xam nga yonent bi wax na ay xadis yu bare bare ci nga ne li Shaam muy Syrie tey am na benn borom xam-xam dafa def ay analyse ci lii xew tey mu ngi yëngatu siri bii day fi ko gëstoom yeggale nooteel gi ak musiba yi bis bu jàllee ndimbal ma yonent bi waxoon moo ciy topp insha allah te ci ay xadis la sukkandiku ba wax loolu kon fi àddina bi toll tey jàpp naa ne même bu dul dara du dara du dara yow bu dee sa kàddu nga am sa làmmiñ sax nga naqarlu ko ñu xam ni yow kat li ñuy def sa mbokk jullit yi neexu la waaye nag jàpp naa ni loolu taxul islam dellu gannaaw taxul it jullit ñi jeex ci àddina bi taxul alquran raaf taxul ñi doon jaamu suñu borom gën a wàññeeku waaye yëf yi suñu borom subhanahu wa taala moo ko téyel boppam dinaay wax mbokk yi nag ne yàlla wàccoon ay malaaka ca badar mënoon na koy wàccee malaaka ba tey ñu koy fajal waaye déedéet yàlla day bëgg jullit ñi yow naqarlu gi nga koy naqarlu di leen ñaanal sax ak jaamu yàlla lay doon ci yow insha allah suñu borom ne ku gëm yàlla gëm bis penc doo ko fekk mukk muy allié ak ab yéefar donte baayam la donte frère am la donte jegeñaalam la donte géñoom la li ko waral mooy ulaayika ñooñu kataba fi qulubihimul iman yàlla mu ne dama roof ngëm yàlla seen biir xol wa ayyadahum ma dëgëral leen man yàlla bi ruuxin ci kattan goo xam ne minhu mi ngi bàyyikoo ci suñu borom ruux fii li muy tekk mooy kattan ruux day tekki kattan ruux day tekki ruux gi nga xam ruux day tekki malaaka jibril loolu tamit lépp yi ma wax yépp ñëw na ci alquran suñu borom mu ni wa yudxiluhum gaa yooyu nga xam ni mbir mi yegg na leen fii nga xam ni yàlla moo leen gënal lu mën a am ci kaw suuf gis ngeen saadu la mu waxoon yaay ja yaay ji ne ko fii ak bàyyiwoo diinay muhammad du ma lekk du ma naan su ko defee su ma dee addina yépp histoire bind ñu ne la xasee yaa qaatila ummi yow yaa rey sa yaay saadu daal di ñëw ba tolloog moom ni ko yaay soo bëggee jàmm bu yeboo nga lekk ba yeboo nga naan gis nga boo yoroon téeméeri bakkan bakkan yi di dee benn par benn benn par benn ngir saadu na dellu ginnaaw ci diiney muhammad saadu dana taxaw di xool bakkan yi ñuy dee benn par benn ba téeméeri mat mu kas leen suul continué ànd ak muhammad allahu akbar ibrahima loolu la waxoon ah inna buraau minkum wa mimma taabuduna min dunillah dañ naa ci yéen set wecc relation yi ma am ak yéen coupé naa ko yépp wa mimma taabuduna min dunillah li ngeen di jaamu wala sunu borom coupé naa sama relation ak ñoom kafar naa bikum weddi naa ko gis nga mbir yi nag day leer de gis nga affaire yi boo bëggee dund sa diine su mu waay naan boo fi waxee da ngeen di coow dafa affaire day leer de qul hazihi sabili na clair sunu borom mu ni waxal ba mu leer ni leen sama yoon mi ngi nii adu ila allah lii laa gëm ci lay woote ala basira ci xam-xam bu set lay tege wa subhanallah sell ñeel na yàlla dama bëgg ngeen xam ni seen caaxaan yi nekkuma ci wa ma ana min al mushrikin man dama bokkaale yàlla gis nga affaire mu làq-làq la ko nëbb nëbbal de na leer gis nga boo xotteew yoon nit ñi nañ xam fa nga jëm ma jox la ci benn misaal bu gàtt gis nga ñu bari ci ñun ñàkk xotti yoon wan jëm mu leer moo waral dañuy faatu ñu defal leen ay xeeti biddaa yu bare bare bari saa saa nga dégg bàyyi diw sax mu ne dénkoon na ma ko bu faatoo nañ ko ko defal lu ko waral parce que da nga nekkoon sa waay di raayante diggante masla affaire bi na leer nangam ji gëw ma ko mu leer nangam ji gëw ma ko man ma waxaale ko mu leer bu ma faatu woon tey ngeen seede ko wàccum kaamil mii gëm ma ko bu fekkee loolu lan yaakaar ni moo may jariñ sama kanamu borom nan ko bañu bàyyi ma ak yërmande yàlla mboolem lu ñuy defal néew yi fekk yonent bi daaw ko def suur naa ko kël su fekkee loola mooy nekk sama sababu tàbbi àjjana man soxlawuma booba lu mel nii nit ki da ko war a wax ay bokkam dégg ko mu leer bu ma kenn defal nangam bu ma kenn defal nangam bu ma kenn nangam man gëw ma lii lee laa gëm gis nga nit ñi maanaam dañ lay teel a xam ngeen olof yi tuddee bërgël bërgël dañ lay teel a bërgël waaye gis nga boo fi nekkee su may di raay raay la ko yomb yombal gis da ngay am problème de affaire yi na leer te man li ma gën a naqari nag te maa ngi koy teg ci loosu ñi nga xam ne tey ñooy góorgóorlu ci diine imagine da ngay nekk ci benn famille kii lii la gëm da koy dund ba jeex takk ba xalagu ca gannaaw tefes ka te kenn du ci wax kii li mu gëm da koy dund ba ca gannaaw tefes ka te kenn du wax waaye yow moom yaay borom coow li yow moom loo laal rek ñu ne la da ngaa da ngaa weddi nangam da ngaa weddi nangam da nga waa léegi kii nga xamante ni moom gëmul ki kii gëm moom ki mu gëm la gëm buy wax moom lay waxtaanee buy giñ ca lay giñ buy topp ca lay topp kee sañ ko waaye ki ci diggante bi lu tax moom du ko sañ moom dama wax ni bu kii gëmee lim gëm ndax gëmut la kee gëm kee gëm lim gëm ndax gëmut li kii gëm ki ci diggante bi sañ naa weddi ñaar yépp te kenn du ci wax dara xaw ma misaal bi ma wax leer na wala déet kii bàyyi nañ ko mu gëm li mu gëm di ko dund kee bàyyi nañ ko mu gëm li mu gëm di ko dund ki ci diggante bi sañ nañ koo bàyyi mu gëm lu ko neex weddi lu ko neex moom it waaye nag wala fi dañuy wax ni bukk bi daa doon ponkal te na muy doxee la parce que am na yooyu xew mu leer de loolu la loolu la xoolal ki may bëgg a nettali bokk mu jigéen la allahu akbar moo tax yàlla xam na ni kàddu gi bu ma ko waxee damaa tiit dama ni ko ah bu doon da ngaa diisoog man nag dëgg dëgg dëgg doo ko waxee noonu bàyyam kilifa la gu mag goo xam ni sëñ bi fa mu nekk la hawla wala quwwata moom laay joxe misaal dama ne gis nga dëkk ba ni ñu ko déggalee su ne woon tey ku julli génn nga tëri ku julli génn di nga tëri bàyyam bi ko jur laa wax waaye lam nekk bokkut ak li mu gëm bi coow li tàngee ba tàng bàyyi ji ni ko diw mu ni naam mu ni ko xanaa da nga gëmul li ma gëm mu ni ko gëwuma ko de te dëkk ba moom rek moo fay góorgóorlu ci diine ñi ma nekkal nii xam nañ ko moom rek kot chaque jour li ma koy tooñ mooy amagoo wéttal ba léegi mu gëm li mu gëm dëgër ko waaye gis nga dëggu gis nga booy dee xalangul paaka paaka dëggu na la rey moo ma nettali nee na ma gis nga bàyyi ji mer te ko dal waaye ba affaire bi jàllee xam nga lu ko bàyyi ji wax mu ne ko yow ku ma neex nga yow ku dëggu nga ndax kàddu gi ma wax keroog foogoon naa ne ñi ma woo ma ko wax kon gis nga affaire bi wëlbatiku na saf suukar di yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa saadiqin ragal leen yàlla ngeen bokk ci ñu dëggu lu mu metti metti booy dee na la dëgg rey gëmal li nga gëm gëmal li nga gëm ku nekk gëm la mu gëm sunu borom subhanahu wa taala mu ni gaa yi nga xamante ni ñoom amuñu benn maslaha ci seen pas-pas ak seen diine la ko waral mooy yàlla ne na maa roof ngëm ci seen biir xol wa ayyadagum bi ruuxin minhu ma dëgëral leen ak kàttan am na yoo xamante ni nag sëñ bi nag ndimbalam yàlla dëgg la laaj nag bari waa na ñoo xamante ni sëñ bi bu yëfi méttee rek ñu dellu gannaaw ñaata ay nit ñoo tàmbali ah yëf yi commencé métti rek gars yi commencé di la menacé boo kii danañ yàq say këyit ca këy tukki boo kii danañ la génne place bi xam naa waajoo xam ni ba fii may wax ak yéen te bi ma koy xam wax dëgg yàlla ku jekk la woon macha allah ba fii may wax ak yéen mi ngi tubaraanki lan moo ko tax place bi moo ko ay frère am ñoo ko bokk dañ lay génne place bi ngir sunna si nga gëm mu nangoo génn place bi pare pour torox moom ba fii may wax ak yéen bi ma ko mujjee gis ak léegi defe naa ci ñaari semaine lay toll bi ma ko laajee mu ne ma maa ngi yëngatu wala te bu nangu woon lan koy woo xam naa ay frère am magasin yu mag lañ yore waaye xeex koo tax ñu génn ko ci mu nangu loolu waaye gëm naa ni man taraka shay an lillah awadahu llahu xayran min ki may wax ni doom fii la mokkalee ci daara ci jàpp nañ loolu rek ndam la ak yeneen ak yeneen am na ñoo xamante ni tey ñi ngi leen di xeex lay la nahaar ngir seen pas-pas waaye ñi ngi dëgër ba tey loolu bàyyi leen ci xel de bàyyi leen ci xel de moo tax gis nga léeg-léeg suñu biir di daje di waxtaan day am solo gis nga léeg-léeg nit nettali la loo xamee da ngay foog ni du diw mii may àndal lii lay dund léeg-léeg nit nit la lu metti loo xam ne wóor na la ne tey gaaral nañ ko xeet lu ne lu ne nag gaaral nañ ko ci koom-koomu àddina ngir rek na bàyyi lim nekk waaye mu dëgër ci lim dëgër am na sama benn xarit bu ma nettali ne benn waay moom bi mu dëgëree ba dëgër paa bi dafa ñëw mu ni ko magasin yi ma yore yépp ci marché sàngam ñëwal boo boo bàyyi li nga nekk ba set wicc mel na nga meloon magasin boo ci bëgg ma jox la ko may la ko lii ki ma ko nettali dara ñëw fii ci darse yi te xam na ko ndax mbokkam la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yu ñu xam la gis naa ci ñoo xam ci la jàqee seeni këyit ndax dañ doon tukki gis naa ci ñoo xam ne bitim réew la leen fekk dañ leen a nax ci sama soosu ba indi leen fii ngir toroxal leen ak yeneen ak yeneen yu ñu xam waaye genn wàll ga ndeysaan bàyyi nañ seen pas-pas dellu ca la lañ nekkoon moo tax gis nga waa ayyadahum bi ruuhin minhu mbir mi dafa laaj dimbalum suñu borom de gis nga fi ne bul la koy nettali rek nga yaakaar ah man de bu doo mën a damay def li may def affaire yombeewul noonu de wa ayyadahum bi ruuhin minhu mooy tax affaire bi yomb de na leer de affaire bi yombul de gis nga ñi nga yedd nii am na ci ñoo xam ne lañ daj bu doon yow a fan yegg sax doo fa yegg yow ci dëgërante bopp waaye nag saa bu ngëm gi yeggee ci xol bi fekk wa ayyadakum bi ruuhin minhu ñëw yàlla dëgëral la ak kàttan nag xam naa koo xam ni sëyam ci la tasee boo deful nangam nangam dama lay wàcc yàq sëy bi dugg na fi génn mu nangu ba fii may wax ak yow sëyam ca la yàqoo gis nga de xam naa koo xam du ma wax koo xam ne de xam naa ñoo xam ne ay jigéen lañ ba fii may wax ak yéen ñi ngi toll ci sëy ñu lànk bañ leen a maye ba xujjati sa fulaar gi boo ko dindiwut kenn du la maye lii may wax nii xam naa laa waxuma dégg naa de xam naa ak yeneen ak yeneen nekk ci place di liggéey yore place ba fonction ba gën a kawe xamuñ nañ lay def parce que mënuñ laa dàpp ñu seet place bu ñàkk faayda jox la ko ngir doya dal la mu wóor la ni yow li nga ñàkk léegi pour nga am ko rek mooy bàyyi sa pas-pas ak sa bàyyi sa ngëm-ngëm waaye sunu borom mu ni effort boobu ñu daj góorgóorlu googu leen seen ngëm-ngëm da jaral sunu borom mu ni moo tax bu ma leen di fay wa yudxiluhum dina leen tàbbal jannatin ajana joo xam ni aw yaatuwaay ba péex ma leer ga misk ba njegenaay ya fauteuil ya lal ya laa hawla wala quwata illa lal boo xam ne su way day yëkkati ba ca kaw ala sururin mawbuuna ah sururun marfuwa lal yu kawe xam nga ni lal kay boo demee ba lal lal xam nga ni su borom demee ba bu koy xool day teen ah lal da daaw ba dina sosoo ba tey lal bu ñuy teen di ko xool amul xanaa bu ñu yëkkati aj ko fenn waaye lal bu nekk fa mu war a nekk te boo koy xool joolaay ba da ngay teen suñu borom ni ma feesal ajana ji yëpp ak i ngegenaay wana maariqu bas fuufa rii boo jaar rek yaa ngi fekk ngegenaay yaa ngi nge tasaaroo ndeysaan donc kali ngegenaay yoo xam ne ni mu nooyee parfum ba cay génne ngegenaay yu verte raf-rafin xudru ah moket yoo xam ni sëñ bi boo jaayoon àddina ak li ci biiram mënoo caa am benn simet moket yoo xam ni boo jaayoon àddina ba mu jeex takk mënoo jënd ca moket yooyu lu tolloog simet sunu borom mu ni moom laay lal foofu wa abaqariyin xisaab moket yoo xam ni sëñ bi ah allahu akbar sabu picc yi xelleekum ndox mi gëtëg miski bi way jongama yi nekk biir ajana ah gis jëmmi suñu borom ja allahu akbar gis abubakarin ñoom gis mboolem sahabatul kiram ak saalihun ya ak shuhada ya ah dëkk boo xam ni amut nelaw amut xiif amut mar amut sonn moo tax benn mufassir dafa xool aay ji ba mu yàgg muy dëgg dëgg yàlla moo mën a fay ndax waa ji la gën a riche ca moom moom la pare pour dagg ko te yàllaa tax yàlla mu ni mu seet la gën a riche foofu ca la muy joxe mu beral ko mu teg ci ni waa ji ki ko gën a jege ah la pare pour couper ay relation digganteem ak moom ngir am ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala sunu borom daal di koy jox place yi gën a jege sunu borom maanaam loo joxe rek moom la sunu borom di wëlbati jox la contraire wa yudxiluhum sunu borom ni dana leen tàbbal jannatin ajana joo xam ni tajri day daw min tahtiha ca suuf ka lanhaaru ay dex xaalidina fiha amul tuxu laa yabguuna anha xewalan loolu mooy amul tuxu xewalan mooy tuxu jékki-jékki yàgg ñu ne ah kër gi kat màgg na génn leen dañ koy toj dal baa ngi daan wala nangam wala location déedéet laa yabguuna anha xewalan amul tuxu kër gi yaa ko moom amul tuxu titre foncier dëgg dëgg dëgg dëgg foofu la bàmmeel sax du titre foncier parce que bàmmeel dama am ab biir nga ja dafay jógee xam nga nit ñi da ngay dégg ñu naan titre foncier dëgg mooy bàmmeel déedéet titre foncier mooy boo moom dëgg dëgg te doo fa jóge loolu ajana rek la am jannati adan adan mooy foo xam da nga fay sax dàkk doo fa bougé sunu borom ni xaalidina fiha dañuy sax dàkk ca ajana radiyallahu anhum yàlla mu ni kontaan naa ci ñoom allahu akbar mbokk yi yàlla kontaan na ci yow xoolal baat boobu ni mu rëyee yàlla mu ni kontaan naa ci yow wa radu anhu ñoom it ñu kontaan ci seen borom ndax li leen defal tey rëy na ah yow sunu borom mun day am nañ yaakaar ci sa yërmande ji yàlla na sunu borom boole ñu ci yërmande jooju am nañ yaakaar ci aljannaam yàlla bu nu ko sunu borom xañ am nañ yaakaar ci yërmande yi sunu borom te mooy yaakaar ji li gën a rëy ci lu ñuy jafdu pour sàkku àjjana mooy yaakaar borom bi day subhanahu wa taala nu ngi koy ñaan an laa yuxayib rajaana sunu borom mu ni xaalidina fiha dañ fay sax dakk radiyallahu anhum sunu borom kontaan ci ñoom wa radu anhu ñu kontaan ci sunu borom ulaika sunu borom nee na ñooñu kat xisbullahi ñooy péete yi sunu borom yi ñooy mbooloom sunu borom mi ala dama ni inna xisballahi péete yi sunu borom wala mbooloom sunu borom yi humul muflixuuna ñooy ñiy taxe jaalana allahu minhum dafa mel ni hada dars yakuna axira darsin fi hada alchahri almubarak bind bi mooy nekk mu jëntalu bind ci weeru koor bu sell bu ñu nekk yàlla day xakimun alim faalun lima yurid ab jaam amut lu dul ñaan boroomam te yaakaar te dundee wax dëgg yàlla ay waxtu yu baree baree bari dañ ko doon def te waroon a def lu ko ëpp di daje di nafar alquran ak di teewe xilaqu dikr nga xam ne yonent bi sa salam nee na jotaay yu mel nii ku koy teewe ñu fay jàng alquran ak di fa tudd yàlla yàlla day wàcc malaaka yërmande yi ci ñoom ak dal wàcc ci ñoom sunu borom tudd leen ca mbooloo ma nga xam ne ñoo ne fa moom yàlla na sunu borom defal ñu loolu ci mbooleem jotaay yi ñu fi am yépp sunu borom de mooy arrahman te moom mooy borom saar boobu di arrahman teñ tafsir ko te moom allama alquran xalaqa al insan allamahu albayan moom rahman moomu ñu ngi koy ñaan an yarhamana jamia sunu borom day mooy arraziq mooy kiy wërsëgal noo ngi koy ñaan ci turam wu foor woowu an yarzuqana rizqan wasian xalalan tayiba sunu borom day mooy alwahab mooy mayekat bi noo ngi koy ñaan ci turam wu foor wu sell woowu an yahaba lana min ladunhu rahma hiba yépp mbokk yi rahma ci gën may yépp moo tax lam may yonent yàlla ya ca suratu saad rahmatan min indina la ci teg rahmatan min indina yërmande la an yahaba lana rahma innahu huwa alwahab ñoo ngi koy ñaan moom sunu boroom nga xam ni mooy alfattaax ci turam woowu di alfattaax wu sell woowu te foor an yaftaxa lana jamia abwaab alxayri walsaadati fi dunia wal axira noo ngi koy ñaan moom sunu boroom nga xam ni mooy alxannaan almannaan alxayu alqayuum dhul jalaali wal ikraam an yajcalana min ahli alfirdawsi al aala allahuma la taxrimna jannataka wa firdawsak allahuma adxilna alfirdawsa daar alabrar allahuma adxilna aljannata daar alabrar fi muqcadi sidqin cinda malikin muqtadir nattakiu ala rafrafin xudrin wa abaqariyin xisaan allahuma ajirna min annar allahuma inna nastajiru bika min annar allahuma ajirna min annar اللهم إنا نعوذ بك من عذابك وعقابك نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان وانصرهم على اعدائهم واعدائك اعداء الدين فانهم لا يعجزونك دمرهم كل تدمير ومزقهم كل ممزق واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليه يا ارحم الراحمين نوين عن سنبرهم weeru koor wii yàlla nangul nu ko su fekkente ni day borom bi namm na ci sunu fan ak gën a féq ba ca kanam te loolu lañ koy ñaan ndax yent yàlla bi nee na li gën mooy saw fan gudd saw yiw gën a bari su fekkee sunu borom namm na sunu fan gën a gudd te sunu yiw gën a bari te loolu lañ koy ñaan yàlla na defal nu ko yàlla na nu dimbali ba nangul ñu ay ramadan yu baree baree baree baree bari te màngam laylatul qadr bokk ci su nekkee borom bi daan nam mu ci ñun àpp boo xam ne bu jege la yàlla na borom bi def ko mu nekk demuk yiw demuk ngëneel demuk teraanga demuk njéggal demuk mucc ci sawara ak tàbbi aljanna te it nag mu nangul ñu li nga xamante ni mooy ramadan bi xaasatan laylatul qadr moo ngi ñaan sunu borom mu xottil nu sunuy dënn roofal nu ci leeru iman allahuma habib ilayna al imana wa zayyinu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان واليقين والتقوى واعمر أعمالنا بالإخلاص والمتابعة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين